أميمة برة بيضاء وعاتكة أروى أشقاء عبد الله فاغتاب الله عن الكنز الغني والبحر الخضم الصني رئيس أهل الهدى ووزير أهل الاهتداء إمام الأولياء وحامل لواء الأسفياء سمي ومولاي حبيبي سيدي أحمد بن محمد السالم التيجاني الفاطمي ورضي الله عن خليفته وموسل إمداداته إلى مريده ومحبيه من أنار الدياجي ورفع الستار عن مسالك الاهتداء والتداني إلى حضرة رب الأواني مولانا وحبيبنا وحبيبنا وسيدنا الشيخ سيد الحاج مالك سي عليه رضا المالك wa an jamii xulafaa'i Cheikh Ahmed Tidiane ila xalifati alxaali mawlaana zi shaybati munayira wal haybati nuraaniya man samtuhu xikma wa nut man samtuhu xikmatun wa nutquhu xikma wa ra'yuhu rahma wa ishaaraatuhu najda wa tasriixaatuhu mahmada aani bihi Cheikh Seydi Abi Bakar Si Mansour أيده الله ونصره ورعاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أوكي فكنا دفقوا لي في بيان بيان ngeen wax waay na reeragut fa tabarakallahu ñi ngi yëkkati kàddu nuyu ak ziyaara jële ko ci suñu xol di ko joyal ci mboolem sang yu tedd yi toog ci jotaay bi yépp waaye di jël nuyoo bi ak ziyaar yépp teg ko ci loxo sëriñ Abdul Aziz Diop mu joxol ñu ko suñu papa Idrissa Gaye ñang fa tabarakallahu di mag ci jotaay bi di kilifa ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay su ko defee nga yóbbaaleel ñu mbooleem kilifa yi fi toog yépp suñu woyjur sëñ Sidi Ahmed ak mbooleem kilifa yi fi toog yépp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay te di leen baalu àq ci kàddu yi ñu yëkkati seen kaw di nuyu suñu yaay Aminata Si di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaayam yal na yàlla guddal fanam may ko wér mook njaboot gi yëpp mu yàgg leen a gunge ba ca kanam kanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu la ñuy def di nuyu suñu yaay alimatu mbaw mu yóbbaale mbooleem daayira bi yëpp ñu ngi koy ziyaara lu bari di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla moom it yal yàlla yokku wéram yokk man-manam ak gudd fanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu mboolem waa daayira bi yëpp sëñ Pape Ndaw ñu ngi lay nuyu di la jox wàccuwaay ak sëñ Assane Trési ñu ngi leen di nuyu Xaaji Buso ñu ngi lay nuyu lu bari di la jox sa wàccuwaay sëñ Mandaw ñu ngi lay ziyaar lu bari fa tabarakallahu sëñ Babacar timit ñu ngi lay ziyaar lu bari macha allah di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yàgg may ñu ñu yàgg fekkee jotaay bii di ko taxawee naa di beral nuyoo ak ngërëm it sëriñ Abdou mi nga xam ne dañoo yéena tuyaaba yéena ñu yiw moo tax mu ñuy bàyyi xel ci bis bi ndax la yonent bi alayhi wax ne yàlla jaarale ci sa làmmiñ benn doomu aadama mu nga gindi mu xam lenn lu mu xamul woon moo gën àdduna li ca biir ci benn riwaaya kon ma yaakaar ne donte na ñàkk nañu solo daf ñoo yéene lu gàtt-gàtt ñu déglu kàddu gi foree ca benn baat bu ñu jëriñ tàmbalee ko ci ñun amaana mu nekk tuyaaba boo xam ne mën nañoo sauver ndax suñuy bàkkaar yu bari kon nag ñu ngi lay ñaanal yàlla yal yàlla taxaw la yal na yàlla yàggal sa say yitte yi nga taxaw ci diine ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mu mel ni ki waxtaan dañ koy tënk ci lu gàtt ndax ku nekk dégg na sëñ Abdou li mu fi wax léegi dafa chargé ba ëpp ndax war nañoo burdu bu burdu bi jeexee nit ñi it war nañoo dallu ji moom it am na feneen fu mu war a dem su defee dañ koy tënk tënk ci lu gàtt la ci des insha allahu taala bu ñu yàlla ma mayaatee jot ba amaat beneen jotaay ñu mën ko caa mottali mu mel ni ki ñu ngi ñu joxoon ñu waxtaane ci wàllu ndaw ci gis-gisu maam Cheikh Seydil Hadji Malick ndaw jeunesse ci gis-gisu maam seex Cheikh Seydil Hadji Malick ak jàngatam ak yan orientation la joxe ci ndaw ñi maa ngi nuyu soxna yi di leen ziyaar lu bari fa tabarakallahu di leen ñaanal yàlla soxna Aïcha ñu wax acca sëñ Abdou moom <laughs> sëñ Abdou day tooñ rek maa ngi koy nuyu bu baax sama dëkkandoo la sama wëllëre la fa tabarakallahu ñu ngi lay ziyaar lu bari ndaw ci gis-gisu maam Cheikh Seydil Hadji Malick la ñu sàkku ñu waxtaane ko yaakaar naa thème la boo xam ne it mëneesu ko waxtaane ci lu gàtt waaye nag mënees na ci tënk lu am solo loo xam ne ndaw lu toog ci jotaay li war ngaa xam sa jàngatu kilifa ci ndaw xam nga dafa am ñetti dof yu daje ñetti dof dañoo daje ñaari dof yu di xuloo xuloo ba tàng jër lool benn dof bi tëkku ko ne ko soo ma ñamee ba ma gëm ne ñame nga ma reyal sa bopp ñu dem yowmal xiyaam ndax suñu xeex mënta yem fii ci àdduna yow yowmal xiyaam rek moo mën a régler suñu problème il faut nga rey sa bopp ma rey sam bopp ñu dem mottali problème bi yowmal xiyaam comme que dof la ñu wax moom wax dëgg yàlla lu ñu def rek moom wàcc na leen dof bi jël paaka ren di boppam ngir xeexi ji yowmal xiyaam beneen dox bi bi ko wax ne ko rendi sa bopp ñu daje yowmal xiyam moom it mu jël paaka rendi boppam ne day dem dabi ko yowmal xiyam parce que dañoo war a xeexi ji te xeex bi mënta xaj ci kaw suuf yowmal xiyam rek la xaj ah ay dof lañ daal <laughs> kenn ki rey boppam dem ku ñaareel ko rendi boppam ne da koy dabi ji parce que xeex bi xajul ci àdduna mu des ñaata ñett lañu woon keneen ko ne xeex bii day dana neex de ñii daal wóoruma leen fee bàyyi ren di boppam ngir dabi fekke ji <laughs> yaakaar naa moom bu fekkee ne ñaari ña dañoo dof moom dafa doppoorak moom xeexut xeexaanut fekkee ji xeex moo tax mu rey boppam ngir dem yow man xiyam fekkee ji xeex <laughs> yaakaar naa kooku moom mu gën a doppooral nit ñi gis nga li ma jàngatee ci loolu li ma bëgg wax foofu li tax ma indi xissa boobu dama bëgg a wax ni ñun njabootu Seex Seydil Xaaji Malick dafa jot ñu rey suñu bopp dem fekk ji Maodo ci bàmmeelam déglu li muy wax bu leen tiit nag waxuma ngeen rendi seen bopp comme ni dof yi def dafa jot ñu dem ci bàmmeelu Maodo dem déglu ji Maodo li muy wax su ko defee ñu mën koo jëriñoo en tant que taalibe ndax taalibe mënagul nekk taalibe li fekk jàngale sëriñam jëfewu ku la wax ne taalibe Maodo laa tale Maodo jàngale xamu ca lenn ak taalibeem xaw na des tuuti maanaam am na xorom su fekkoon te na togg la ñu ne des nañ des manqué na xorom parce que njàngale ma mooy tax mu xam fan lay teg tànk moo tax ñun ñëpp war nañoo dem ci bàmmelu Maodo ñu fekke ji ko jox ko nopp mu wax ñu fan la ñuy teg suñu tànk rawatina ci jamono ji ñu toll xam ngeen fuy bàmmeelu Maodo fan ngeen ko yaakaar fu ngeen yaakaar bàmmeelu Maodo ah Tiwaawan Tiwaawan bàmmeelu Maodo nga waaye bàmmeelu Maodo piir mi ci biir mbindam bàmmeelu Maodo piir mi ci biir mbindam kuy wëri Seydil Xaaji Malick bëgg xam kan mooy Seex Seydil Xaaji Malick ca njàngaleem ca ragal yàllaam ca orientation ya muy joxe force nga jàng mbindam wala nga déglu ñu wax la lan la Maodo wax nga teg ci sa tànk doo ko réccu àdduna ak alaaxira rawatina ci jamono ji ñu toll nga xam ne gaa yi kenn ku nekk dangaa gaare sa kaar di dugal gaa yi di sànni nit ñi di sànku rek kenn ku nekk yaa ngi woote di dugal ci kaar di yóbbu foo xamante ne kenn xamul dafa jot nag ñu xam Maodo kaar ban la gaare ak kaar bu boo ca bëggee dugg bu ñaata ngay paas paas ba yomb na mooy jëlal sa nopp nga jox Seydil Xaaji Malik bañ a fol koroode la koy jox jox ko nopp bi dëgg ne ko Maodo dama bëgg a xam moo tax ñun ndaw ñi ñun ndaw ñi nga xam ne man mi di wax ci laa bokk tey dama bëgg ñu jox suñu nopp Cheikh Seydil Hadji Malick déglu yan conseil ak yan xalaat la gisee ne ndaw lu ko doxee sa dund dana baax fii ci àdduna sa dund dana baax fële ci àllaaxira ndax ku xam Seydil Xaaji Malick xam ne bi muy mat Maodo dëgg fekk na génnagul ci âge ci jeunesse parce que man Seex Seydil Xaaji Malick bi muy taalif Taysiir bii Taysiir mi ngi ko fekk ci ñaataat yaakaar na 30 ans 30 yaa ngi ci jeunesse parce que arab yi dañuy xaaj dund doomu aadama ci ñeent bëri na ay xaaj mais ñeent yi ñooy xaaj yi gën a màgg yi gën a rëy ñu koy tuddee ak tufuula ak al shabaab ak al kuhuula ak al shayxuuxa ñeenti xaaj yii la donte na xaaj bu nekk am na ca biir ay parti ñu ne at la mooy xale bi bu mu juddoo ba keroog muy am ba keroog muy majeur majeur nag bu ñu ko waxee mën na nekk ci 15 ans mën na nekk ci 13 ans mën na nekk ci 14 ans bu leen dégg majeur rek yóbbu ko 18 ans loolu tamit benn problème la ci suñu dégg-déggu diine majeur foo ko déggee mooy yow la waroon sa bàyyi fekkee góor nga war na la la doon bàkkaar sa baay bu ko defee ñu bindal ko bàkkaar loolu boo ko defee ñu bindal lu lu doon jëf ju baax joo xam ne boo ko defee sa sa baay bu ko defee ñu bindal ko ko soo ko defee ñu bindal lu même chose su fekkente ne jigéen la majeur googu dafa am ay melokaan yuy tax ñu ne su dajee ci yow ñu ne majeur nga age bi mooy dix-huit ans moo ci mujj wa kullu wa kullu taklifin bi chartil aqli maa buluuxin bi damin aw xamli aw bi maniyin aw aw bi inbaati shaar aw bi samaani asharin xawlin xawlan zahar lii mooy condition yi tax nit ki nekk ko majeur ba ca njëkk mooy nga am xel ñaareel ba mooy nga gént tëdd nelaw ñu envoyé la message ni ko alinsale di waxee nga jot message yeewu gis tubay tooy majeur nga matal nga 15 ans 13 ans nga am 14 ans nga am jàppal ni majeur nga boo sangoo heure boobu julli dalaa war soo julliwul yawmal qiyaam yàlla dana la laaj julli googu lu tax julli googu maa ngi ci jeunesse koo koy commencé su fekkee ne jigéen nga toog ba yàgg gis nga sa bopp loo lu daawul génn ci yow muy deret commencé génn ci yow donte ne treize ans nga am jàppal ne majeur nga lu waroon sa yaay war na la wala nga gis ëmb ci ci sa bopp majeur nga wala nga sentir karaw gu bokkul woon ci sa ci sa jund feeñ ci yow moo xam karaw puqataan wala karawu sikkim wala karaw naq bu commencé génn ci yow góor nga wala jigéen majeur yooyu yëpp nag bu jeexee ci tënk ci lañ lay wax ne boo gisul yooyu yëpp nag ñu ne la léegi xaaral ba nga am dix-huit ans nga doog a majeur lii mooy premier âge mooy tufoo la diggante bi nga juddoo ba keroog ngay majeur kooku mooy première partie foofu amul problème parce que foofu yàlla subhaanahu wa toggu la fa dara foofu da ngay gala yaabe doxalee nu la neexee amul problème waaye bis boo xasee nag bañ togg la jëf ñu ne la majeur bi jàppal ne responsabilité diine tegu na sa kaw loo sew seen foofu nag mi ngi tàmbalee ba keroog ngay am 40 ans foofu lañ tuddee jeunesse diggante bi nga majeure ba keroog ngay am 40 ans moo tax jeunesse moo gën a yaatu ci âge bi nit di dund ci dundam jeunesse moo ci gën a yaatu parce que diggante bi nga major ba di keroog ngay am 40 ans la kon boo xoolee daanaka da nga duré léeg-léeg vingt ans et quelque yoo xam ne ci jeunesse nga koy def première temps bi mooy yaa ngi ko def ci bi nga ngay am benn at ba keroog ngay am fukki at ak ñett jàpp kooku matul ñaar fukki at beneen ki yaa ko def ci diggante bi nga amee ñaar ñeen fukk ba keroog ngay am juróom fukk mooy dor yi beneen ba yaa ko def ci juróom fukk ba keroog ngay am ba keroog ngay faatu kon ñu fi toog ñëpp xaaj bi mën nañ ne ñëpp ay jeunesse lañ ci jeunesse bi lañ bokk mooy ñi tàmbalee dix-huit ans wala quinze ans ba keroog ñu am quarante ñii nag maam Cheikh Seydi Hadji Malick daf ne ndaw dafa bokk ci jamono yi nga xam ne moo gën a doy ci jamono yi nit di dund parce que doomu aadama dafa am juróom mbir yu nekk ci moom yoo xam ne buñ ko war buñ ko waree yar te loolu ka koy yar xamu ko làmbatul yooyu ba mën koo bës la ca nekk ci ay tilim mu génne ko chargé ko ba mu baax ci ay jëf yu baax ak ay jikko yu baax ka ngay yar yaroogut ba ca njëkk mooy xel Maodo nee na lañ war a njëkk yar ci jeunesse bi mooy seeni xel ci résumé su ma paree dinaa détaillé ba ñaareel ba mooy jaanibu ruux yi nit ki ruuxam dañ koo war a yar moom jeune bi ba ka ñetteel mooy aatifa santiment wu nit dañ ko war a yar xam nga am na ñoo xam ne seeni xel yaruñ léeg-léeg da nga toog ak nit nga wax benn mot mu déformé wax ji déggee ci leneen ñaawal ko contexte bi nga ko doon jëfandikoo mu changé ko dugal ko ci leneen loolu day am ngeen ko seetloo ci léeg-léeg génération yi ñu tollook léeg-léeg ñuy kaf nga wax dara rek benn baatu wolof ñu jël baat ba orienté ko yóbbu ko fu ñaaw ça diir dire dañoo yaragul xelam ba tax lu toq ci xel mi contraire bi la koy déggee wax ju ñaaw la nga insister ci li nga ko wax mun la per déggoo ma de jeex na tàkk non ni mu koy waxee noonu laa amee déggoo ma de waaw ah, fekk ne moom moo la déggut moo tax xel dañ ko war a yar boo ko yarul rek lu mu gis interprété ko ci benn beneen sens boo xam ne musiba la koy déggee parce que dafa yarul xelam ñaareel ba mooy ruux sa ruux da nga war a yar loolu moo am rapport ak sa wàllu jaamu yàlla danañ ci ñëw ba ka ñetteel mooy sa santiment nit dafa war a yar santiment wam jeune boo yarul sa santiment mooy waral nga dugg ci loo loo looxóor yoo xam ne da ngay dem ba génn ca doo xam la la ca dugal lan la da nga ca dugg ba génn doo xam lu la ca dugal lan la parce que sa sentiment nga yarut te bu nekk dinañ leen ci jox misaal ba ca topp mooy aljaanibul jismi wax naa la ñett xel mi ruux gi santiment bi ba ko ñeenteel mooy yaram dañ koy yar am na ay góor yoo xam ne tey boo boo boo tolloo woon ak ñoom ci garab gële kaay leen kaay leen daw ba ci boutique bii bu ñu dawee ba yegg si ci boutique bii force ñu naan ñaari potu ndox ndax sonn waxuma nag ku feebar ku feebar moom kooku moom kaa exceptionnel la mais koo xam ne dara jutu ko mais dafa bàyyi yaram yaramam mu xaw a bàyyeeku ni naa Omar dafa bañoon loolu Seydina Omar da daan fekk góor buy dox di yoroosi yoroosi di bàyyi jaay jaay affaire yu sëriñ day jël karawaasam dóor bipp ci kaw doxal góor nga góor buy dox dafa waroon mel ni góor ah mi ngi mel ni dama ko fekkee yàlla seetlu na noonu la ko Seydina ma daan defee góor da ngay nuru ne góor nga jeune nga da ngay wane ne jeune nga góor nga booy dox wane na da ngay dox doxinu góor waaye booy dox ceg sa tubéy ji wàcce ko ba mu toll fii nga ne jeune nga da ngay dox sa ndaw nga wàcc sa tubéy ba mu toll fii di dox nga xam ne tey bu ramas génnoon fii di dàqee ñami njëkk jot ca ngay bopp jamono ji ramas ku mu dàqee jeune yu mu dàqee da ngay leen jàpp parce que seen tubéy yi fii lay wàcc peew ko nag seere ko ba mu seere moo tax heureusement am na benn côté bu mu baax ndax léegi booy yi kenn ñameetul xeex xeex moom waxtuñ ci dara parce que kuy xeex sa tànk dafa war te koo xam ne sa tubay ji moom tànk bi boo doxee dox bu baax sax tubay ji seere la yaakaar naa talatoo xeex moo tax ay tàppel <laughs> baal moom rek lañu produire jamono ji yenn <laughs> yàlla musal ñu ci loolu kon dafa bokk ci dafa bokk ci yaru nit nga nga nga tàmmal sa bopp ne yow góor nga nga wane jikkoy góor melokaano melokaanu góor jeune noonu lay mel ba ko juróomeel mooy aljaanibu nafsi sa bopp da ko war a yar war a yar bu lee stressé lu bari loolu danañ la wax noo koy yaree ci biir ba ko juróom benneel nag mooy aljaanibu lictimaa yi ci côté social jeune dafa war a tàmmal boppam nekk nit ku social jàppalante dimbalante ak ay moroomam Seydi Hadji Malick ci résumé damaa joxe résumé bi ci juróom-benn yi la traité jeune ni mu war a mel da nga war a yar sa xel war a yar sa ruux war a yar sa sentiment war a yar sa jëmm war a yar sa sa psychologie war a yar sa côté social ba nekk koo xam ne nit ku social ngay doon ci résumé même ku ñibbi woon tamit jàppal ne lii mooy Seydi Hadji Malick proposition bi mu joxe ci préparer jeune bi mën a yor àdduna ëllëgëm yowmal xiyaam mu mën koo defal léegi nag ñu ne ko Maodo programme bii nga tëral nga xam ne ci la nit ki di war a jaar pour yaru ci juróom benn poñ yi ma tudd yan démarche lay jaar pour mën caa yegsi mu ne première bi mooy bopp bi bopp bi mooy xel mu ne la ca njëkk mooy na dem jàngi gis nga Maodo fi mu génnee nee na na nga yar sa xel mu ne première nag ni ngay yaree sa xel mooy dangay ngay jàngi jeune bu toog jàngoo jàngoo say morom di dem école ngay jaar ci car rapide yi di lang ñu lay may cent franc xamal ne sa àdduna yàq nga ko sa ëllëg yomal xiyaam tamit yàq nga ko parce que boo jàngul doo xam nooy jaamoo yàlla te boo jaamool yàlla bu ëllëgee yàlla bu la laajoon man rabb ko nga nekk na ma ràbboon jaay naa ko nga fay des Sidi Hadji ne première bi mooy jàng mu ne nag gis nga nit ki jàngul wa laysa farqun baynama al insaani wal xayama wal xayawaani duuna ma la irfaani Maodo nee na liy def différence entre xar yi ñu yeew ci gétt gi ak ñun ñuy fanaan ci néeg yi nee na suñu différence lenn kese la mooy xam-xam Maodo nee na bu fekkente ne xam-xam boobu nga war a am nekkul ci yow ne jàppal ne yow xar mi ñu yeew ci gétt gi da ngaa yàpp xar mi rek yàpp ko xam ne xar mënta wax manta dox ay soxlaam manta kaas ay doléance am waaye nee na xar mi nga yar yeew ko ci biir gétt gi boo amul xam-xamu diine amoo xam-xamu àdduna nee na ba nga yeewee xar mi ci côté bee waroon ngaa jël beneen buum nga yeew sa tànk toog ci wetam te xam ne yéen ñaareel du sama wax ma Maodo ko wax wa laysa farqun baynama al insani wal xayawaani dunama al infaani moo tax alaaji Mansour waxoon ne bàyyi dégg naa li nga wax tolloo naag sama nit yi jamono bàyyil ma bàyyil ma leerale leen ko ma interpréter leen ko mu gën a gaaw mu ne usiikumu ayyuha shubbaani gis nga moom baat bi mu utiliser terme ak mot bi baatu jeune la la utiliser ashubbaan plurielu jeune la usiikumu maa ngi leen di dénk yéen ndaw ñi ayyuha shubbaanu fii usurin ci jamono ju ngeen mën a doon moo xam jamono ji may wax la moo xam jamonoy deux mille vingt-deux la man alaaji Mansour maa ngi leen di dénk ala taallumi ci jàng bi bu ngeen jàngee ba pare wa taalimi li ngeen xam fexe leen seeni rakk xam ko waaye bu ngeen koy def nag teel leen ko def fii sigari ci jamonoy ndaw mu ne naxwa taallumi qum bil jiddi fii sigarin wa jaa fi qabarin kan naqsh fi xajari laa tuhmili darsa wal ihmaalu matlafatun illa li udri min al aadaari muctabari alaaji Mansour ne première Seydi Haaji Malik ne première eh, médicament bii tax jeune bi bopp bi baax mooy fexe na dem jàngi njàng nag bu ñu ko waxee yaatu na am na xam-xamu diine am na xam-xamu àdduna Maodo nag ñaar yooyu dafa am bu ca war a jiitu topp leen démarche yi benn par benn ñu ne ko Maodo bu war a jiitu mu ne kun axi muqaddima tawxiid yi boobu mooy deuxième point bi mooy laal sa wàllum sentiment ak tawxiid mooy psychologie bi gis nga nit ki bu amul tawxid tawxid mooy jàng ni ngay wéetalee yàlla soo amul tawxid nekk jeune mooy waral dootoo am stabilité ci sam xel parce que lu ñëw rek da ngay jàpp ne am na ku ma liggéey am na lu ma def nii wala dootoo dootoo yaakaar yàlla doo wéeru ci yàlla lu ñuy wax at tawakkul dootoo ko defati Sidi Xaaji Maalik ne jàngal tawxid boo jàngee tawxid dana tax yow jeune bi nga wéeru ci yàlla sabab lu ji nag parce que tawxid moo lay jàngal nga dem sabab ji ba pare boo sababloo nga wékk wékk say mbir ci yàlla benn waaye dafa mos a ñëw ci yonent bi su du yonent bi di Seydina euh, Omar yonent bi la yaakaar na bàyyi jëleemam ci biti ñëw ci yonent bi yonent bi laaj ko mu ne ko ah man ne sama jëleem bi bàyyi naa ko foofu bàyyee ko yàlla mu ne ko déedéet bul ko bàyyee yàlla demal nga yeew ko ba mu dëgër su paree nga dox ko bàyyee yàlla loolu mooy at tawakkul bokkul ak ak tawaakul ak tawaakul mooy toog rek di xaar yàlla toog ci garam place bi rek wala topp bal bi baraada bi buloot bi cigarette bi jàpp na yàlla dana ñëw fekk si la yàlla du la mën a fekk si loolu la ñu tuddee tawaakul jeune da ngay am fulla dem sabab lu ji wuti soo paree na nga sa nga sa ci yàlla subhaanahu wa taala la jox nga xam ne yaa ko wa kullu ma faalahu jalilu zaaka jamilun yartadin munibu sida xaaji malik ne deuxième médicament bi ma lay jox pour sa bopp bi psychologiquement nga mën a nekk nga xam ne boo amee xam ne am nga waaye li nga am yàlla moo la ko jox kooku tawxiid moo la koy may boo ñàkkee nga xam uti nga sabablu nga waaye yàlla miy joxe moom moo téye loxoom ne kat du ma la joxe nga gëm yàlla ci loolu moo tax Maodo ñëw indi programme taalif ci téere muy hidayatul wildaan ne téere bii kat maa ngi ko tuddee hidayatul daan mooy liy orienté ndaw ñi nga xam ne dana tax ñu mën a xam lan la ñuy jaamoo yàlla ak lan la ñu war a gëm ak lu ñu war ta gëm ci wàllu tawxid moom mooy tax seen bopp yi baax ñu ne ko ak ban mu ne ñaareelu xam ñetteelu xam-xam ba mooy xam-xamu fiq dem jàngi ji ni ngay jaamoo yàlla jeune gu war nga jaamu ji na ngay naka ngay jaamoo yàlla summa xayaatu diini wal islaami subhaana xaaliqil wara salaami baqaa'uhu bil ilmi wa taqwa fala tasixu duunahu ka zuhdil xasala Seydi Xaaji Maalik nee na diine ji li tax mu des fi mooy xam-xam te ndaw ñi ñoo yor diine tey fii ñu toog génn leen fi ñu am ñu am 10 ans ba 40 ans nga xool ñaata ñu fi des ñi fi toog nañu génn ñi fi am 10 ans ba 40 ñu xool ñaata nit ñooy des ci jotaay bi kon ñi fi toog xaaj bi yëpp ay jeunes lañ kon loo ci déggee mooy ñi fi jeunes yi ci boppam ñoo war a yor diine kon diine bu amee problème daa fekk jeunes yi ñoo jàngatut mooy li ma doon envoyé keroog sëñ Abdou damay liir ba yàgg gis ci benn benn téere muy jàngale nit ki buy jiitee di yàq araf ca la muy jàng problème yi mën a posé ci julli gi ak ni mu mënee yàq julleem yàq julli ñu nekk ci ginnaaw waaw araf yàq araf waxuma la ñàkk xam li ngay jàng yàq araf foo war a wax sha nga ne fa sa problème yu ngan la man bi ma ko liiree damaa tiit damaa liir boobu man ci teer bi yàlla xam na ko ci teer bi laa ko liiree <laughs> dit waay problème yu rëy la mën a la mën a créer lu dul mu nekk koo xam ne dafa làmminam moo tax loolu naturel la mais lu mu mën a jàng jàngu ko problème bu rëy lay posé ci dund <laughs> ah waaw ñi taq moom amul problème loolu moom yàlla moom moom moo leen ko bindee waaye ñi taqul ñi nga xam ne nag dañoo amul yitte ci jàngi ko ñoo ñoo am problème man dama koo gis rek ci saa si ma ne lii moom sama xel man doyatuma ci xaar ma la envoyé bi sa ñam ndax dama tiit wax dëgg yàlla xamul rek ay musiba gi ñëw kon Seydi Hadji ne li ma leen di njëkk proposé mooy gannaaw bi ngeen jàngee xam-xamu tawxid dem leen ngeen jàngi xam-xamu diine Maodo doy wax de ca jamonoom te ren giila la téeméeri atam ci biir suuf déglul wax ji moo ko wax mu ne xallu madarisa ahlillahi wamtalau madarisa alkufri hada aqbaxu lxiin mu ne li ma métti ci jamono lenn la mooy ñun ñëpp ay jullit lañ waaye ku jël sa doom doo ko yóbbu ca daara ja da nga ko yóbbu ca école ba mu dem jàngi A B C D E F G H ba mu jeex loolu ba nu de ak a baax te dana ko wax ci biir ne baax na mais lim lim ñaawlu mooy nga bàyyi ko mu yem foofu te mu war a xam-xam-xamu diineem nga bàyyi ko mu concentré temps wam yëpp ci njàngum nasaraan du xam dara ci diineem loolu la Maodo dénoncé mu ne yow waajur boo bëggee sa doom nekk jeune boo xam ne day am taxawaay ci diine fexeel ba mu juddoo war a toll ci jàng lay njëkk dugg ci noppam fexeel mu nekk baasin mimara mu jàng diine xam alquran mën a jàng ci njàngin wu rafet wi ko sëriñ doon jàngi tur bi sëñ Mouhamad ni mu ko doon jàngee ci njàngin wu rafet nga yóbbu sa doom mu jàngee na xam-xam-xamu diine su noppee nag soo ko duggalee ci arabe français bi mu dem jàng te nag xam nga lu bari woy jur yi dañ koo commencé miin sax léegi mais bu njëkk ba xamuñ ko gis nga xale bi jaar ci daara jàng alquran ba mokkal alquran bu ñëwee ci école ba moo fay man loolu laaj ko directeur yi école yëpp laa la wax directeur yi école yëpp yi mën a seetlu mbooleem élèves yi ñu am ku ca jógee ca daara boo ñëwee léeg-léeg sax dañ lay tëbal classe pour nga jàll parce que yaa leen di gën a muus yaa leen di gën a am xel yaa leen di dàq mokkal waaye téere yàlla bu tedd bi ku war a tëwati dara dootu la tawati Maodo ne xallu madaarisa ahli dikri wamtalau madaarisa kufri mu ne haada nag axbaxul xiini mu ne nag aqbaxul xiini jamono yi gën a bon mooy jamono ji ñu toll yal na yàlla musal ñu ci su ko defee loolu lu jar a bàyyi xel la way juri soxna yi ak ak bàyyi ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax ba ci topp Maodo ne ndaw ñi lay wax ak waaye nag am na ci benn paar boo xam ne mag ñi ñi dañ cee am responsabilité mu ne bul ne mag laa rek na passé na âge jeunesse nga ne dootuma jàng mu ne déet laysa li zi aqlin saxiixin il badan tarku taallum ictisaaran fi zaman tey lu ma fi wax lu ma wax keneen Maodo rek laay wax mu jeex parce que yéen a wax ñu waxtaane jeunesse ci dégginu Maodo fa si yéen a maa wax lu dul lu Maodo wax waaw ah, Maodo rek te lépp lu mu wax da ngay gis ne ci jamono jii dafa mel ni tey jii da ko doon xam nga léeg-léeg dangay man am na ko ma koy faral di wax sama benn mag la danañ man dama bëgg jàng laxdari waaye daal damaa xam ne su ma dugalee fii bind bi su ma xëyee dem uti dërëm dërëm bi fii lay jaar génneel dars bi mu da koy wax clair moom moom du ci am lenn lu muy dëgg danaan laan bëgg naa jàng waaye su duggee fii su ma xëyee beneen nopp bi fii la ko dërëm bi di jaar mu génn la ma jàngoon ma ne ko nag léegi luy solution mun a xaaram xaar yàlla ma ne ko waa toogal xaar yàlla saa soo bëggee ma jàng ma jàngal waaye nag kay jàng force moom boobu moom sama maxaama yëgut Maodo ne laysa li zi aqlin saxiixi képp ku yàlla wërsëgal nga am xel xel mu wér dofoo yaa ngi nekk nit njaay di doxi say soxla nee na amatoo ngant ci bàyyim njàng Maodo ko wax amatoo ngant ci bàyyim njàng même bu la jamono rawoon nga toll ci say 60 ans nga dem ba yëg ne am nga lu la manqué ci sa diine Maodo nee na jamono des na deewagoo ndax waxtu taallumi min al mahdi ila lahdin laa udra li man takassala Maodo nee na parce que jàng mi nga tàmbalee ci mahdi berso bañ la fa tëralee fala njàng commencé ci yow ndax da ngay jàng ni ñuy lekkee di jàng ni ñuy naanee di jàng di jàng di jàng ba keroog ngay mën a wax njàng loolu day continuer ba keroog ñu lay dugal ci bàmmeel Maodo nee na amagoo kenn képp kuy dégg kàddu gi te sa diina am lu la rëcc nga dend ku tudd Abdul Sëriñ Abdul Aziz mii demal nga gaaw jox ko sa téere bu jàngal rawatina jamonoy WhatsApp yi ñu toll nga xamante ne YouTube moom lépp gaa yi yuut nañ fa lépp YouTube yuut nañ ko fa ci biir maanaam wax nañ ko ci waxin mboolem xeetu xam-xam yi nga bëgg boo demee ci wolof am na kon ku jàngu dalaa ne laxdari yoo ngi fi lépp nga fa chaque jour ma koy wax nit ñi warees mën a jàng Maodo génn foofu mu ne ba ca topp nag mooy en tant que jeune jàngal wax nañ la na nga jàng sa xam-xamu diine jàngal sa xam-xamu àdduna waaye ba ca ba ca topp nag mooy boo jàngee ba pare na nga ko jëfe boo jàngee ba pare la nga jàng bu fekkente ne jëfewoo ko benn mag dafa nga waxoon ne xam nga nit ku jàng ba pare te jëfewoo ko nu mu mel mu ne ko ah mu ne ma mi ngi mel ni nga sol caay ju rëy rëy rëy rëy ba pare te amul ñoor nga bëgg a daw daxante dawal daw <laughs> solo caayo ju ngand rek ba pare dindi ñoor gi sànni ñu ne pirib nga ne danga daw du sotti boo dawee benn paa ñaari paa caayo ji bu waddee bu la tiqatee waxuma la sujjóot ngay def waaye da nga da nga mëq suuf ba dawee mu ne xam-xam boo xam ne jëfewoo ko mu ngi mel ni nag nga sol tubay ju rëy joo xam ne amul ñool Seydi Xaaji Maalik ne taallamu maa chitumu fa lam yunal ajrul ula in lam yusaaxibul amal mu ne li ngeen di jàng ak lu mu rëy rëy su fekkente ne jëfewoo leen ko yéen jeunes yi amagul sens wax ji yemul ci xam mu diine dugal ci centre de formation yi xam nga Sénégal loolu mooy suñ problème gis nga tey centre de formation boo fi dugg lañ la fay jàngal lañ la fay jàngal théorie yooyu noonu lépp day jaar yoon ci texte yi lay tege waaye booy génn booy génn ca sa collègue ya nga fekk ci terrain bi lañ lay wax non réalité yi fii ak la nekkoon centre ba bokkul de fii yeneen réalité la la ngay jàng ca biir centre ba boo génnee yeneen réalité ngay fekk ci terrain bi loolu ku jaar ci centre de formation xam nga da ngay jàng lii législation la wala leneen la wala leneen la théorie yi nga defoon foofu yëpp mën nga génn nag di def say say say say kii di pratique ci yenn kii yooyu noonu waaye boo génnee say stage jeex nga dem commencer liggéey liggéey la nga jàngoon ak na koy defee nii la yàlla ak yàlla Maodo nee na yow jeune bi su fekkente ne bëgg ngaa jëriñ sa société fexeel ba la nga jàngee sa centre de formation respecté ko defee ko ni la ko jàngalee wallahi mbooleem jeunes yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi su fekkonte ne lii Seydi Hadji Malick wax def nañ ko teg ko suñu nopp teg ko suñuy gët lañuy jàng ñu appliqué ko noonu duñu am problème moo xam ci hôpital yi la moo xam ci école yi la moo xam ci bépp secteur bu mu manti doon su fekkonte ne lañuy jàng ci théorie yi bu ñëwee noonu lañ koy appliquer pratiquer ko duñ am problème yàggut am naa sama benn mbokk feebar na am ku koy opérer di whatsapp maa la ko wax te pourtant bolok kooku na ci liñ leen di jàngal booy dugg bolok war a yóbba yóbbaale yóbbu euh, portable kon boo xoolee lañu ñu théorie ak la mu la muy la muy jëf bokkut dama ne ko kooku da nga ko waroon porter plainte parce que bi bi mu ko opéré opération bi dafa baaxut dañ koo opéré waat ko opéré waat te noonu koy fekkee ci secteur yëpp nag amul amul exception yëpp muy bi ma nekk ak bi ñeneen nekk ak bu keneen nekk ñoo ci bokk yëpp moo tax si Hadji Malick ne ñun ndaw ñi su fekkee bëgg nañu suñu société baax suñu àdduna baax suñu àllaaxira baax na ñu fexe lépp lu ñu jàng nañu fexe ñu jëfe ko ci diine ji ak ci àdduna bi muy ñaareelu pay ba ka ñetteel nag mu ne en tant que jeune fexeel ba na nga ut métier mu ne ndaw day sàlloo métier ndaw day sàlloo métier ci daa ji nee na nit ndaw lu muus na nga fexe da ngay fexe ba sa àdduna ñaar yi rek moo koy laytaay ñaar nee na ñaar yi takkal ñaari soxna waxuma soxna nag dëgg waxuma fi kenn takk ñaari soxna sëñ bi damay bañ a génn fi ñu karma karma waxuma kenn takkal ñaari soxna dama ne Seydi Hadji Malick nee na ndaw lu ne fexeel nga takk ñaar ñii nga takk ñaar ñii ba ca njëkk mooy nga takk xaalis mooy utim liggéey ak takk xam-xam wa aaqilun yakunu fi shay'ayni yasaa fala thaalisa duuna mayni nee na boroom xel day fexe ba ñu sàlloo ñaari jabar ñaari jabar yo ñaari biir kese la ñu ne ko ba njëkk Maodo ban la mu ne xasanatun takunu lil maadi jëf ju baax jëf ju rafet joo xam ne bu ëllëgee yowmal qiyaam boo tëddee sa bàmmeel mu am lu weex tàll lu ñëw nga nekk ko yow la kan mooy la man la jëf ju baax ji nga doon jëf ne looloo jërëj looloo jërëj jënti waaye di jëf lu bon di jëf lu bon nga tëdd sa bàmmeel ñu yee la këpp këpp jógal nga jóg xool jàkkaarloo ku ñuul kuk sol lu ñuul kukk yaram wu ñuul kukk veer yi ñuul kukk karaw ga ñuul kukk nga ne ko yow la kan mooy la mën la sa jëf ju bon ji nga doon jëf ci kaw suuf maa ñëw seet si la loo ci man Maodo ne nag boo amee xel yow jeune bi fexeel ba ñaar yi nga sàlloo leen mooy xasanatun takunu lil maadi jëf ju rafet joo xam ne bu ëllëgee sa bàmmeelu mën laa sauvé sauvé ñu ne ko ñaari bi ban la mu ne dirhamun min al maashi baadi ak alal joo xam ne dana la dana la fegal ngay tuur say nagu bët ci jooy ci kanamu maanaam ngay ngay ngay ñàkk sa ngor ci leneen loo xamante ne boo amoon alal doo ko ñàkkee sa ngor mu ne wala saalisana bul ut beneen bul takk ñetteel ñaari ñi rek doy nañ tuyaaba joo jaamoo yàlla ak dërëm boo xam ne sa àdduna da ci mën a da nga ci mën a da nga ci mën a doy Seydi Xaaji Malik ne képp koo xam ne bépp jeune boo xam ne dangaa doyloo poosu jàmbur nee na yow nañ la tuddee nit ku doyadi Maodo ko wax nee na kuy doyloo poosu jàmbur saa soo xëyee ne xaaral ma dem ci appa diw mu jox ma dara wala xaaral ma dew di dem ci waaye diw mu mu làmbal ma dara wala nga romb waaye sama waaye dara amul foofu ah ñu ko gars yi defee amul am foofu waaw bëgg lu yomb xalaatoo liggéey lu dul topp ci gaa yi rek ñu lay jox topp ci gaa yi ñu lay jox Maodo nee na képp ku sàlloo loolu nee na kooku mooy nit ku doye di wa kullu mustaghnin bima al insaanu yamlikuhu fa qul lahu lhawaanu Maodo ko bind nee na képp koo xam ne day doyloo poosu jàmmur yi nee na kooku tuddee ko nit ku doye di waa na xam ngeen mooy kan doye di mooy koo xam ne moom amul fulla amul valeur amul lenn ah, aka bari fii rek boo fi génnee di dox daanaka bala nga yegg ci tali bi da nga gis ko tas ku la taal loxo te yonent bi waxoon ne loxo bi féete kaw moo gën bi féete suuf yonent bi dafa benn benn waay dafa dafa gis benn waay muy muy muy tàllal loxo rek bu xëcc ko ba mu ñëw ne ko am nga sémmiñ mu ne ko mu ne ko da nga dem jël sémmiñ dugg ci foore bi dagg matt ñëw saam di jaay moo gën ngay tàll sa loxo bii nit ñi kon góor maanaam du ma ne góor jeune da war a gëm sa bopp dem liggéeyi ah, am na ñoo xam ne seen papa rek lañ yaakaar dem nag ba war a takk soxna di xaar sa papa mu jox la ndékki ñàkk fu la weesu loolu ah. <laughs> nga ful la de waaw comme que moom am na lu mu la wecce kay war na mën a doy loo tax dëgg yàlla saaw <laughs> aha kay moo tax Maodo jàngale na ndaw ñi dañoo war a wuti liggéey waaw boo jàngee ba am sa xam-xamu diine jàng ba xam sa xam-xamu àdduna léegi nag la ca des mooy dama nga uti bul xaar sa papa yow kay boo bu la bu di yor di la jëndal yére di la yoral lépp yoral la ba nga màgg gaa kay xanaa da nga war a ngéejoo góor gu nekk war ngaa ngéejoo war ngaa ngéejoo balaa sa balaa sa wayju di la wan ginnaaw di dugg ci suuf nga defal ko teraanga jam la daan defal ba nga nekkee ndaw lii ku am xel jeune bu am xel loolu moo war a nekk ci sa objectif man mii de sama baay ak sama yaay mii nga xam ne ñoo ma yor ba may nekk ndaw war naa fexe ba bala ñoo tëdd suuf ma defal leen noonte ne mënuma leen a dab teraanga dañ ma doon defal lum mu gàtt gàtt ma fay leen un pour cent ndax xam naa ne mënuma leen fay jeune bu nekk war ngaa def loolu sa xel mu nekk sa objectif sëñ bi baa heure bi jegewut ah kon ma tëb deux bi dugg ci trois bi wax naa leen xam-xam wax naa leen li liggéey ba ka ñetteel Seydi Hadji Malick nee na jeune bu nekk boo bëggee jëriñu sa àdduna jëriñu sa àllaaxira da war a am ambition moo doy wax danga war a am yitte am ambition am ay bëgg-bëgg foo tollu rek war ngaa gëm ne fii ma toll balaa déwén war naa ko weesu moo xam ci liggéey la moo xam ci niveau jàng la lu manti doon Seydi Hadji Malick bul jël sa bët bi nga teg ko ci say cati tànk jeune waroo jël say bët teg ko ci sa catu tànk rek ne am naa lii rek ak gongo xaw ma noonu lañ koy waxee um ah noonu lañ koy waxee kon baax nit da war a am gis-gis bu sori am vision bu sori gëm ne lii fi ma teg sama tànk tollu fa nii ren fekkente ne da bëgg fi nga tollu ren déwén mu fekkaat la fa xamal ne yow enseignement wu Cheikh Sidi Hadj dégg googu enseignement wu Cheikh Sidi Hadj dégg googu Maodo nee na nit ku nekk. war ngaa nekk pigeon pitax ñu ne ko Maodo bu ñu nekkee pitax nan la naawee mu ne il faut nga monter ay laaf yu ñu tuddee yitte moo tax nga mën a naaw wal mar'u min himmatihi yatiiru ka tayri nahwa ma bihi yaduuru laaf yu tudd yitte Maodo nee na jeune bu nekk war nga koo monte fu si yéenee naaw moo tax moom ba mu koy wax comme que moom lu mu la jàngal daf koy def daf ne man am naa ko waaye damay ñaan yàlla mu dolli ma ala himmati fajal ilahi aliyatan ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati danaa ñëw ci baat bi li an sirtu xurran ku nekk xam Maodo gor lu tax mu ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ma am yitte gu tax ma nekk gor nit ki boo amul yitte da am sens interdit ba mu déggeen ma walla jeune boo amul yitte léeg-léeg nga am sens interdit cib koñ xam ngeen luy war a sens interdit ñu ne la yoon bi kan nga ne yoon bi dama koy bañ li gaa yi di def cin bi moom day bañ yoon bi boo ko jëndee côté bi ngay jaar loolu ça veut dire que kon cin bi côté bi lañ ko sàcc kon boo ko jëndee boo jaaree nii borom cin bi bu dàqee buy wër cinam bu la jàppee yow la jàpp na yaa ko sàcc Maodo nee na Seydi Hadji Malick nee na nit ki su fekkee dafa bëgg a nekk góor gu set wicc fu ko neex mu traîner te kenn du jàpp ci mbubbam poñe ko ne ko bor ba nga ma yoreloon wala triyande ga nga ma triyande woon fay ma ko nee na da ngay fexe nga am yitte dem wuti ji ñàkku jëriñu taalibi cheikh liggéeyal ci métier mu fànqal la gàcce lu leen yàlla sedde na leen loolu doy loolu mooy taalibi mu ne wal maru min himmatihi yatiiru ka tayri nahwa ma bihi yaduuru ba ci jaamu yàlla yittee koy may nit nit ki boo amul yitte doo jaamu yàlla ndax jaamu yàlla ñett kesel jaamu yàlla ñett la dafa am jaamu yàlla jaami mooy ibadatul abid am lu ñu tuddee ibadatul tujja am lu ñu tuddee ibadatul ahrar ibadatul abid mooy jaam yi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ngir ragal safara ak ragal bëgg aljanna yaa ayyuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ngir moytu safara tiit ko am ñu tuddee ibadatu tujjaar mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla waaye dafa am luñ ci bëgg mooy yàlla dafa leen aljanna inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna aljanna lañ ci bëgg ñooñu la ñu tuddee jaamukatu yàlla yi nga xam ne ay commerçant lañ dañuy naxanteeg yàlla yàlla fay leen ñu dugg aljanna waaye ba ci gën a foor mooy ibadatul ahrar mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla innama nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura dañu leen di layal te yàlla tax kooku la Seydi Hadji Malick ne maa ngi ñaan yow yàlla nga defal ma yitte ju tol ni danaa mën a dépasser ñaari façon jaamu yàlla yi yegg si troisième jaamu yàlla bi ibadatul ahrar mooy ila immati fajal ila ala immati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulli wijhati boo koy ñetteelu niveau ngir gaaw baka ñeenteel Maodo nee na ndaw lu bëgg a jëriñoo sa àdduna ak àllaaxira il faut nga am orma jeune bu yaa ngi neexal waxtaan wi mu ne jeune bu bëgg a jëriñoo àdduna ak alaaxira il faut nga am orma ci man ñi bari na jeune bu yàqu ñàkke teggin mag mu mu xamul moo ko yàq ma wax bari na jeune bu yàqu nga nekk ba yàgg gis ko mu neroon a nekk ku tekki nekk ba yàgg muy soli sagar ñàkke teggin mag mu mu xamul moo ko yàq léeg-léeg da nga dugg ci oto yi buuxante am wala kërëb kërëb am nga gis benn jeune buy dàggasante ak mag wenn dàggasante woo xam ne da nga naan kii fan lañ ko ay waajuram yare ku ñu yar waroo mel noonu Seydi Xaaj Maalik nee na boo bëggee jëriñu sa àdduna ak àllaaxira yow jeune bi amal xurma yuwaqirul kabira yarxamu sagir yucdiduhum fi dicri rabbina alqadir Seydi Xaaj nee na mag ñi nañu yërëm ndaw ñi waaye ndaw ñi nañu jox cër mag ñi ndax ci ñaar yëpp àdduna ak alaxira looloo leen di mën a jëriñ bi xurmatin wasala man qad wasala bi tarkiha fasala man qad fasala sëriñ Haj Maalik neena na même ci wàllu jaamu yàlla sax nit ki pour mu yegg plafonné ci wàllu jaamu yàlla am orma moo koy may gis nga pour ma woon la orma bay Idris gis nga alquran ji alquran boo ko jëloon tey nga sànni sànni loo ko def maanaam mën nga ko ñàkk jàng tey nga ñàkk jàng alxuraan génnoo ci diine ji yaa ngi ci diine ji ma toog journée lëmm jàmm jànguma alxuraan maa ngi ci diine ji mais tey tu ma jëloon alxuraan ji sànni ko génn naa ci diine ji parce que dama koo ñàkkee orma te ku ñàkk orma yàlla génn la ci diine moo tax orma lu am solo la ci doomu aadama ba ci topp nag Seydi Xaaji Malik nee na gannaaw ba nga amee orma ba pare mooy fexeel nag comme que ndaw nga na nga sàmm sa bopp jeune sàmmal sa bopp parce que xamoo kan nga war a doon ban statut nga war a am ëllëg yàggut xaw ma kan laa déglu mu koy wax mu koy nettali dama xamul ci rajo laa ko déggee xaw ma fan laa ko déggee muy wax ne dafa am benn benn ku ko nit ku kawoo woo ma ne góor la war a jigéen ku ko woo ne ko moom day saa su xoolee ay doomam rek xoolam day naqari mu ne ko lu tax sa xol di naqari mu ne parce que ci ginnaaw dama daan sol colin bu bon di doxee doxin bu bon te léegi loolu lépp mu ngi ci réseaux sociaux yi mu ngi ci Facebook beeg yooyu te tuub naa jégalu naa yàlla arrière naa bàyyi naa loolu te xaw ma est ce que sama doom yi ñu ngi gis image yooyu wala déet looloo tax saa su ma leen xoolee damay am sa di xalaat ne gis nañu image yi mais dañoo noppi ci loolu moo tax ndaw lu nekk war ngaa sàmm sa bopp fexe ba ëllëg doo am lu ñuy taqal sa der na diwkat yaa fi defoon nangam yaa meloon nangam moo tax yonent bi waxoon ne yaa ma'shara yaa ma'shara shabaabi man istataa minkumul baa falyatazawwaj yéen jeunes yi képp ku ci dem ba am lu yàlla dénk ci wàllu alal dama nga takki soxna bul foo sa bopp ndax boo fooyee sa bopp rek sànku nga yàq nga yàq nga ka nga doon fooyee ci ñaari côté yëpp rawatina jamono ji ñu toll muy jamonoy WhatsApp nga xam ne internet li ñu tuddee tic bi tic yi aleykum salaam wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah فهو نبي الأنبياء من أول لآخره وهو الصفي الأصفياء وصيد الأكابر فهو النبي الأنبياء من أول لآخر وهو الشفي الأثقياء وسيد الأكابر آه فهو النبي الأنبياء من أول كل آخر وهو الصفي الأصخياء وسيد الأكابر أيوة فهو النبي الأنبياء من أول لآخر وهو شفيع صفي الأصياء وسيد الأكابر يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بالضير يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا بالذاكرين على النبي احترموا وحرمتهم وعظموا عراده وسلموا للمصطفى يدهم على النبي تلموا حرمة وعظموا عراده وسلموا للمصطفى يدهم Tijaani ak Cheikh Seydi Mouhamed Buldaan Atijaani xayaakum allah wa fiikum rafaa allahu maqaamaatikum incha allah mu mel ni ki ma tëj point bi rek xam naa ngir jeexal ndax nuñ ko mën a matal fii yëpp tey maa ngi tolloon ci ndaw dafa war sàmm boppam xam yaay kan moo xam góor nga moo xam jigéen nga parce que waxuma la rek wàllum yowmal xiyaam parce que nit ñi léegi boo leen di wax yowmal xiyaam maanaam affaire théorie lay doon ñoom dafa mel ni yowmal xiyaam comme que teewagul rek amuñ problème yowmal xiyaam mais ci sa adduna war nga sàmm sa bopp ba ëllëg doo am ay souvenir yoo xam ne boo ko xeele boo ko xoolee sa xol bu naqari rawatina ci jamono ji ñu toll jamonoy internet bari na léegi koo xamante ne mu ngi yàq dundam ci internet bi jeunes yoo xam ne ngi yàq seen dund ci internet bi te gis nga téléphone yii yii luy musiba ñoo la gën a nekk musiba ci misaal whatsapp ñun ñëpp ñu ngi yor suñu whatsapp booy installé whatsapp lu mu lay laaj numéro kay voilà numéro téléphone la lay njëkk laaj gis nga installé whatsapp ba pare nga installé facebook lu mu lay laajaat sa numéro téléphone boo demee ci Facebook boo xasee ba installé Facebook bi da ngay xool ci suuf am na ay da lay bind naan connaissez-vous def deux points wàcc ci suuf mboolem nit koo xam ku nekk say contact dangay gis foofu mu proposé la pour nga def ko ami xam nga lu ngeen jàngate foofu mooy jamono bi nga installé WhatsApp wala nga installé Facebook sa données yëpp gars yi ñu ngi ko yor te gis nga am na ci ay risques yu ñuy dugg. jamono bi ngay installé téléphone bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay euh, installé système mu téléphone bi da laaj boo bëggee dugg ci caméra bi danaan laan il faut nga may ma accès pour ma mën a dugg ci say photo sinon doo mos a photo voilà première première téléphone boo ko jëndee mu bees li feeg mayoo ko autoriser woo autoriser loo ko mu dugg ci télé ci say photo doo mos a photo ba ilaa yomi diin ni gars yi Sina ba ak yooyu yoo ko mos def il faut nga may ko autorisation mu am accès ci say photo ça veut dire que kon moom la nekk ci say photo mu ngi koy jël photo bu baax ak bu bon boo ca def waa WhatsApp am nañ ci accès waa Facebook am nañ ci accès nga pare bëgg a def vocal mooy la il faut nga may ma accès ma mën a dugg ci say son door mën a def vocal kon yii yëpp ñu ngi ñuy spoye ñu ñu ñu ngi ñuy wër di ñu superviser di xam lan mooy dox ci suñu dund te am na bu ca gën a garaawati am na ay logiciel lu ñuy tuddee antivol antivol xam ne daanaka virus la ci biir lay ëmb dañ koy léeg-léeg day ànd ak ay virus yoo xam ne day day day day jël say information lépp lu nekk sa téléphone ci lu baax wala lu bon daf koy jël am na lu ñu tuddee système bu ñu tuddee zombification léeg-léeg dana faral di am ci ca téléphone yi mais li muy ëpp di am moom ci machine lay faral di ëpp lu mu am nit dana sàcc wala ñi nga xam ne ay nañ ci internet trop sax danañ ci jël léeg-léeg euh, jéem cee attaqué am réew defee ko ci sa machine yëpp ci téléphone yi la am moo tax ndaw ñi nañu moytu li Seydi Hadji Malick wax nañu sàmm sàmm gi nag yemul ci téye sa bopp rek waaye sàmm ba ci sa biir néeg soo téewee sa téléphone xamal la nga cee def waaye appel vidéo nekk sa biir néeg def la la neex jàpp na yow rek yaa fa wéet yaa ngi nax sa bopp de yaa ngi nax sa bopp parce que ëllëg yowmal xiyaam yaa ngi sa biir néeg yow kese waaye ëllëg yowmal xiyaam yow kese doo fa nekk yawma tubla sarairu wa ma lahu min quwati wala nasir yàlla nee na bis bi may muri mbalaat mi ñu naan Cheikh Sakho yaa def lii kenn du ci man dara kenn yàlla musal ñu ci wa tabarakallahu maa ngi guddal xam naa point yi ëpp na lii waaye comme que waxtu wi dafa xat dañoo maf ñaan point bu nekk rek ñu jël ci benn exemple waaye ëppoon na lii di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal na yàlla mu ñu dégg topp ñun ndaw ñi yal na yàlla sàmm ñu parce que ndaw yombul muy man di keneen ci bokk yam léegi léeg seytaane mën na lay xiir ci leneen waaye jële naa ci mag mu ne jëlee naa ci benn mag mu ne ma su fekkente ne say santiment yow ndaw bànneex dalaa sonal léegi léeg ngay sax xol di la yóbbu ci jëf ju bon del faral di jàng laqad jaakum lu bari ne laqad jaakum day dammat santiment wu nit day tax doo am yëg-yëgu ngi baal ma ñu ma wax ko rek mu gën a leer maanaam day tax ndaw li yow mi takkagul soxna doo am yëg-yëgu di dem di fréquenter jigéen waaw ah kay laqad jaakum boo koy jàng lu bari day dam mat say santiment wu ci jigéen ba tax doo am yëg-yëg bi tax ngay def def def lu bon li gars yi di wax ji <laughs> kooku mooy mooy mooy point bi bi rey gérer waaw fa tabarakallahu laqad jaakum dee leen waxuma leen ne laqad jaakum jaakum jaakum de laqad jaakum dañ koy jàng ba mu leer waaye boo fa nekkee na xat jaakum jaakum dara du ñëw ngay jàng jaakum jaakum du ñëw waaw day leer mu mu set wi ci door a ñëw fa tabarakallahu xam naa li ñu indi woon ëpp na lii waaye rek eh, liñ ci am rek doy na di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal na yàlla mooy ñu fekkee at yu bari di jéggalu ci kàddu yi ñuy yëkkati li sëñ Abdou ubbee woon lay tàmbalee eh, lii liggéeyu xadara bi la liggéeyu njaboot la yenn njaboot ci xadara bi ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu xam-xam ñu koy tuddee si rajo siraajul kii malikiya benn comité scientifique la boo xam ne mi ngi ci xadara bi yàlla nattuñu ñuy coordonnateur bi euh, ànd ci ak suñuy kilifa sëriñ euh, Pape Makhtar Kebe ak sëñ Maam alfa ak sëñ Sidi Ahmed ñu superviser liggéey bi ñu nekk ceeg yeneen i boroomi xam-xam yoo xam ne ay universitaire lañ ci àdduna bi ci fu wuute ci dëkki àdduna yi ak biir Sénégal lii nag benn revue scientifique ñu bind ko ci arabe ak ci français mu def ay articles yu ama am solo ci ci Seydi Hadji Malick ci côté bu ne am na ci côté yoo xam ne nag xam naa oustaz yi war nañu koo liir ndax mi ngi jàngale mi ngi jàngale waxtaanu jamono ji waxtaanu jamono ji naka la ko Seydi Hadji Malick jàngatee woon ca jamono ba muy dund pour wan leen ne Seydi Hadji Malick mooy nit koo xam ne jamono yëpp day dox wallahi alazim maanaam boo liiree loo da ngay sentir ne dafa mel ni Seydi Hadji dafa fekke woon suñu média yi ci jamono ji ak suñu conférence yi ak suñu yi daf ko fekke woon parce que façon waxtaanin wi ak la ca nekk ci maanaam ñàkk am euh, lañ cay lañ cay wër ci xam-xam lépp dangay gis ne Seydi Hadji Malick jàngale woon na ko bu yàgg du yëpp nag dama damay damay damay junj rek waaw folklore beeg yooyu yëpp la la ci junj su ko defee lii 3500 lañ koy wecc ko am na arab am na français voilà projet la moom pare na daanaka waaye dañ ko war a édité diwaan bu bees bi ngeen di gis détails yi ci nekk yëpp ku bëgg xam diwaan bi li mooy présenté diwaan bi moo lay jàngal diwaan détails yi ci nekk yëpp euh, inventaire yeeg yëpp a ngi ci biir ak cosaanu diwaan bi ak yan xeeti xam-xam ñoo nekk ci diwaan bi ak lan la ci Seydi Hadji Malick développé a ngi ci biir bii mooy version français bi française bi am na bu arab bu arab bi téye woon nañu ko depuis bu yàgg tey bii damaa demoon université téye waale ko pour am ci ay échantillons yu bari fi teewoon bu arab la bu français bi aussi aussi même chose ñaar yëpp ñoo tolloo waaw fa tabarakallahu su ko defee bii bu génnee incha allah danañ leen ko mos a indi indil waaye bii moom disponible na Tiwaawan ku ñëw ca dal ba rek xam naa dinaa indi ci dal ba lu bari ngeen barkeelu ci barkeelu ci liggéey góor gi sax Seydi Hadji Malick yal na yàlla may ñu dégg topp ngeen baal ñu àq